waaw waaw ah, maa ngi nuyu ñëpp ah, di sant yàlla di julli ci yonent bi bu baax a baax di sant di gërëm ah, sama yaay di sant sama ñaani waa ñaari waajur yu baax a baax di sant sama sëriñ sëriñ Babacar Si Malick waaw loolu ni mu demee nag mooy dangay liggéey sooy liggéey si si sa biir liggéey rek nit mun a nax nit mënulaa naxee lu dul sa biir liggéey ah donc waa ji dem na xale pala bi dem na parcelle sama kër yaay bi mu demee mu laajte mu laajte sama tur man mi ngi jaaree par kër Demba Dia Demba Ja bi gaañu fa la jaaree bu mu demee mu dem sama kër yaay mu laajte ma ñu ne ko yaa ma nekku fi mooy leen dama amoon mariage bu ma moom mu ko comme man ak Demba dañuy woy mariage ak ay xew ak yooyu dañuy jël ñu teg suñu orchestre di ko woy donc soo ñu jaaree ci côté boobu noonu mën ngaa am leneen lu dul loolu léegi bi xale bi waxee loolu Demba ne ko nekku fi mu Demba woo ma téléphone xale Pël Fuuta bu fi ñëw ne dañoo am xew bu ñu a woy ba ma koy reetaan naan ko Demba mariage Pël Fuuta bu ñu fa demee lan laa war a wax man ko waaye yow comme dégg nga tukulóor te mun ngaa way di ma ci génnee ba muy reetaan man ko léegi géré la ak moom mu ne ma moom nee na la bëggoon gis parce que nijaayam moo res xew bi te il faut moom mu gis ma man ko nag man maa ngi damay liggéey nee ko damay liggéey Sen TV parce que du ma bëgg du n'importe qui rek moo may woo nii ma wax ko comprendre nga léegi nag bi mu bi ma dem Demba neexee ndax ma jox ko sa numéro Demba xam na numéro bi muy joxe du joxe sama numéro personnel bi mu jox ko beneen numéro numéro boobu d'habitude euh, sama xarit yi sama fans yi ma ciy woo ñi ma bëgg ñi ma ciy woo ñoom laay jox numéro bi dañ ko wane dañ ko joxe télé moo tax du ma bëgg di joxe sama numéro personnel bi léegi bi mu ñëwee moom mi ngi ñëw suñu kër jeudi vendredi mu xëy mu dem euh, Sen TV mu laajte ma d'après euh, ba am na benn journal bu bind sax journal boobu noonu mi mu bind ne visite bi moo ko tegtal suñu kër visite du Sen TV xamul suñu kër sama kër yaay visite du Sen TV bi xamu fa ñu ne ko yaama yaamadu liggéey vendredi déjà mooy benn bi nga xam ne mooy site bi bind na loo xam ne amaana leeru ko bi mu ko waxee ne ko yaama du liggéey vendredi moom mu dem ñibbi euh, lundi ma wàcc ma liggéey seen TV wàcc fekk ko fa mu taxaw mu nuyu ma comme d'habitude nit ku nekk nit nga des fois da ngay nit ku ku manqué dajeeg ku manqué wul ku ku wul ci télé mu taxaw di wax ak man man ko ça na nga def parce que arrêté boobu taxi mu ne ma man maa lay woo fan yii yëpp français lay làkk man maa lay woo fan yii yëpp man ko dëgg la kay man ko mais man instant bi la woon mu ne ma ma la doon wax maa ñëwoon seen kër man ko ah bon mu ne man ko kon yow foo ñibbi mu ne ma Derklé man ko kon yéegal ñu waxaale ci taxi bi comme ça yow mu wàccee la côté Derklé ba ma ne taximaan bi fan la ñuy jëlee oto Derklé taximaan bi dama nañ dem naa ko woon suñu yegsee ba foofu ci biir taxi bi mu ne ma d'habitude ñaata ngeen di wooyee ay mariage man ko bu nekkee mariage la koo xam ne dañ ko xam ñun man ko bu nekkee sama xarit la wala ku ma xam et tout cent cinquante mille parce que musiciens yi ngay fay la boo waree jël musicien guitariste marimba batterie sabar comprendre nga ak solo bi nga xam ne moom ngay yóbbu ci mariage ma ne ko des fois du bëri su nekkee sama xarit la cent cinquante mille pour juste musiciens yi man lu ma fa woy am ko fa man maa ko moom ma ne euh, munoo wàññi deux man ko non non munuñu wàññi deux garaawul sax ndax sama euh, tonton bi nga xam ne moom moo géré affaire bi sama nijaay kooku même boo ko laajoon ba quatre cent mille ndax daf laa bëgg gis na la ci télé bi dina la ko fay man ko amul problème mu mu ñëw ba coté fi muy jëlee oto derkale mu wàcc moom dem derkale man ma ñibbi sama kër gisante wuñu déggante wuñu mu jékki-jékki euh, ma liggéeyi mardi ma liggéeyi mardi mu woo ma mu ñëw fii mu ne ma sama nijaay bi bëgg na fee ñëw fekk man dajeeg moom si bunt bi fekk bu fëggee fii duñ ko ubbil man fii ku ñu xamul duñ la ubbil même man su ma génnoon léegi di su ma ñëwee di fëgg dañ naan ma kookan la tant que waxoo sa tur doo dugg kon defe naa ne am na côté boobu bi mu ñëwee mu fëgg sama benn xarit ne ko mu ne mu ne mu ne ko kookal la mu ne ko yaama mu ne ko yaama nekk fi tijjiwul sax dafa ne ko yaama nekk fi mu demaat bay 13 mu ñëwaat fëgg sama beneen xarit bi ne ko koy seet mu ne ko yaama kooku da ko yuuxu sax ne ko yaama nekk fi léegi bi mu toggee si buntu kër gi fii ndax xale jigéen yi gis nañ ko bi mu toggee si si buntu kër gi man ma liggéey ba wàcc jaar marché mercredi liggéey ba wàcc ñëw ak saag bi ma yore woon bagage yi ma yoroon sax wàccee ko mi ngi si mbuus bale ma dajeeg moom si buntu kër gi mun ma sama nijaay bi moo waxoon naa contacter ak yow pour ñëw pour mu ñëw fi tey pour ngeen gisante pour finaliser mariage bi man ko instant bi nii taluma ko parce que sama kër dafa tilim te dama koy defar taluma taluma yooyu ma wax ko benn ton bu metti bi mu demee mu ne ma ok kon à tout à l'heure mu dem bi mu demee après nijaayam woo ma man police laa xamee ne ndekete appel yi ma doon jot muy changé baatam moom moo wax ne du woon nijaayam moom moo ko doon def mu changé comme quoi que nijaayam la mu ne ma sama parce que kii yaa ngi fii vocal yaa ngi fii sama téléphone day enregistré vocal yaa ngi fii mu ne ma sama nijaay mu mu jël voix nijaay bi mu ne ma sama jarbaat bi ñëw na fa léegi nii mais nee na ni nga ko tontoo baaxul man maa ko yebal pour mu jiituma sa kër man maa ngi jiikoo benn restaurant bu nekk Almadi mu ne mi ngi foofu dafa am lu muy terminé juste rek moo ngi ñëw fekk si ko fii nii man ko man dafa ñëw fekk man may liggéey sama liggéey donc mënu ma ko teg ci chaise mu toog wax ay wax sama bu ma doon boyalal mi ngi dëkk fii tout dafa dindi woon bëñam kooku boyalal ma ba pare man ma sangu ba sol tubéy ba sol jean bu noir jean bu bula laa sol ak benn chemise bu nu mu benn t-shirt bu vert vert vert turquoise vert fluo moom laa sol sama xarit bi boyalal ma ba pare sottil ma ànd bi ne ma maa ngi dem jëli samay garab moom xale bi mi ngi toog fii pële futa bi mi ngi toog fii di naan benn verre coca bi mu ko naanee ba pare ñuy seetaan novelas euh, nu mu tudd Teresa ma toog sama kaw lal fii moom mu toog ci chaise bi fii ñi ngi waxtaan ci lu bëri mënu ma penda si pourtant sama nijaay bi sax mi ngi wax ne mënu ma yaama moom yaama sax la may wax mënu ma yaama sama nijaay bi mi ngi wax ne dafa bëgg sax nga gunge ko euh, ci euh, dans deux semaines Canada man ko man dew ma Canada ci ci contrat jàmbur laa nekk dew ma waxtaan moom mu expliquer benn problème xaw ma kan ku ñu héberger woon après kooku ñu ñu ñu ñu mu trahir ko genre yooyu quoi ma koy wax moom bi noonu la tëddee maa ngi toog fii mi ngi teg coca bi si wetam mu jékki-jékki ne ma naa ko may ndox aw ma intention bu bon ci xale bi pour man xale la te mariage moo ko andi te nijaayam lay xaar parce que tamit li ma nax nii mun naa nax keneen ku dul man ma jug may ko ndox ma jël verre ak benn kaas may ndox ñëw jox ko mu naan ba pare ma wane ginnaaw per bii laa tegoon ma wane ginnaaw di yóbbu kaas bi mu ne ma yaa ma attend am na lu nekk fii sa ginnaaw lii ma wax nii waxaat na ko moom ci kanamu policier yi bi ñu ko laajee dafa waxaat lii ma expliqué nii nii la ko ba mu leer mu ne ma na lu nekk sa fii ma wane ginnaaw mu princé ma nii. génne paaka bu weex mooy paaka yi lemu mu génne paaka bu weex jam ko sama fii mun ma si tu bouges je ma xëccante ak moom mu jam paaka bi fii bi mu jamee paaka bi fii nag man man sama xel ma tudd sama yaay sama xol tudd Serigne Babacar sama xol. da koo teg waaw da koo teg jamuma da koo teg. da koo teg fii mun ma si tu fais quelque chose je vais te tuer ak ak pression bu dëgëraa mënuma yuuxu jéem naa yuuxu ba son même sama baat bi dafa dee sama lii mooy metti fii. jéem naa yuuxu yuuxu ba sonn te man maa ko sut man maa ko ëpp paaka bi rek laa doon calculer waale ci sama xel ma ne kii su ma xëccoonte ak moom dina ma gaañ mu ne ma déshabillement ma dindi simmi pantalon bi ma soloon ba pantalon bi jeex ma mel ne kuy tëdd ak action boobu comme moom film la seetaan moom ba princé ma man tam seetaan naa film ba réussir li mu ba réussir li ma bëggoon a def man tam ma tëdd mel ne kuy tëdd sama kaw lal moom mu teg paaka bi ñett yi mu bëggoon a boole yi wax bu feebaree nopp yi koy déglu war a wér munuma pressé ba ma mu yor paaka bëgg simi tubayam pour dëddee ma wax dañ koy déglu yéen ñii seetaan di ngeen déglu bu baax a baax li ma wax parce que waxi dof ak waxi nit njaay dëkk jamono mun ta ne maa ko sut maa ko ëpp maa ko long maa ko large mu xoj ma ba pare bëgg a yor paaka bëgg simi tubayam tëdd sama kaw loolu mun ta nekk lu nit dof dof dof war na mun a xalaat mu teg paaka bi bi mu tegee paaka bi tëdd sama kaw man tëdd sama kaw teg paaka bi man lonku paaka bi ak sama tànk wax la ko police nee nañ ko yaama nan la def comme dafa wane fii ne dama ko jam ñu ne ko nan la def ba jam la mu ne leen paaka bi tànkam la ko indee sama tànk bu naw bi dafa dagg ndax dama kepp kepp paaka bi ba léegi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi tëdd sama kaw ak xocc tëdd sama kaw donc kooku mballu ma rek comme on dit mballu ma rek la mun a def donc yooyu yooyu yooyu yooyu amul amul man naa jekku paaka bi te gauche la non non yegg sa kaw mooy koo tëdd ni jaaxaan mu dugal sexam sa kaw mais sama ginnaaw la doon tëdd di di boros sexe am sama kaw comprendre nga boobu teg na paaka bi moom ma may ko opportunité boobu nag xëcc ci képp paaka bi sama tànk di ko xëcc sama tànk ba paaka bi ñëw comme gaucher la paaka bi bi mu ñëwee dama ko dama ko prise moom paaka bi mu ñëwee foof nag moom dama dama dama dama euh, yàlla ma yàlla dimbali sax si loolu ma def sama yaay laa doon wax ne lépp lu ma mës a defal sama yaay situation bi ma nekk yàlla ma ko yàlla fay ma tudd sëñ Babacar si ñetti yoon ma tudd sëñ Babacar si ñetti yoon bi ma ko prisé moom paaka bi tàgg ko fii ma dóor ko contre daw tijji bunt bi woowaa kër gi maa ko dóor maa ko tëj sama biir kër man maa ko dóor maa ko tëj sama biir woo ay xale yu góor ñu ñëw ñu ñëw jàpp ko man naa ko yóbbu police ko biir néeg bi muy bëgg a daw mu jaar sama bëgg a jaar sama parenteer xam naa ni bu fi jaaree dina tëb ma woo ko xale yu góor yi ne leen day tëb xale yu góor yi taxaw fële ne le ne ko boo tëbee fii dañ lay rey mu duggaat ci biir kër gi taxaw donc man moom jàng na sëy na seetaan na télé ba mën maa prise man aussi seetaan naa film ba mën ko man ba mën ko kii nu tudd ba mën ko seetaan na ma ba ba ba kii ma nu mu tudd prince ma man aussi réussir naa sama sama sama prise ba mbot ko jël jël paaka bi nangu fekk teg na fi paaka bi ma récupérer paaka bi ak sama tànk xeexa ak moom sama biir kër tëjji bunt bi woon nit ñi nit ñi yow fekk ko fi man maa ko yóbbu police kenn yóbbu ko police non gaañu gaañu mooy gaañu gaañu paaka bi ma ngëboon parce que man gose laa gaañu gaañu paaka bi ma ngëboon te face bii dagg face boobu la paaka bi féeti sama loxo donc ak ni ma ko dund ni ma bifee paaka bi noonu noonu mu dagg ko moom fii wane na ko démb police neen dama ko dagg fii léegi moom bi mu accepté affaire bi accepté na lépp fee bi yëpp nu mu demee accepté na lépp nu mu demee porté mu ko plainte si saa si laa ko yóbbu foofu loolu ngay plainte amu fa ndax ndax daar daar daar boobu nga ko yóbbu noonu plainte amu yaa ngi noonu taxaw sama sama yére bi takk deret ak sër bi ma woddoo woon yépp tànku neen laa demee ba police parcelle ma yóbbu ko police ñu dem teg ko fa enquête ko expliqué ko mu expliqué wax lépp nu mu demee c'était mercredi si guddi jeudi ma dem police ñu enquête ñu mu teg ko mu toog ñu teg man toog moom mu expliqué man maa njëkk a expliqué ma expliqué ni mu demee moom aussi mu ne li yaa ma wax yépp dëgg la nii la scène bi demee li ma wax yépp da cee d'accord moom d'accord ni moom moo ko def policier bi di ko laaj lan moo tax nga def ko mu ne c'est parce que dama ko doon gis ci télé rek mu neex ma ma wër euh, euh, euh, planifier affaire bi ba ne ko dama am xew ba ak mën a am contact direct ak moom. nangu na lépp jeudi vendredi dem ba ñoom police parcelle woo ma suba teel ma jug dem bi ma demee ñu ne ma xale bi waxaat na leen joxewaat na beneen version man ko xale bi version bi mu njëkk joxe mu naa man ko version munu koo munu ko ndax dëgg mënta romb ay nopp. su ma demoon bay def lu bon dinaa romb xale Pël Fuuta bi Sénégal ba mu daj su ma neexee dama yëkkati sama loxo su ma fee def daray manka ban version bi mu waxaan mooy version bu ñaaw ay yaama dañoo waxaale 300000 ki ku sol ay daalu cerxu téeméer sanguwul salte na tilim na kooku yoru 300000 li mu jox kenn. te man du ma dof xanaa bu fekkee sax nit caga xanaa yàlla ma yàlla baal ci moo bi ma ko waxee kuy jaay boppam su demee bay bay dem bay jaay boppam bala moo tëdd nit ki di ko jox xaalis bi xanaa bu fekkee man jaayuma sama bopp ñi jaay seen bopp xanaa ñoom seen xel war naa mën a dem ci balaa nga maa tëdd di ma jox sama xaalis ba pare ma compté ba mu leer ma du dëgg man dofuma jina jàpp ma dëkk bi fii laa dëkk journal boobu nag bind li ko neex bind na la client de yaama waroon na maa seetal benn client bu dul xale pour la fouta bii wax dafay rafet yéen journaliste yi li tax nit yu bëri ragal sax di wax man ragalumaa tontu journaliste journaliste damay ubbi sama téléphone donc journaliste bu dégg si man dara na ma woo dama koy wax li am Serigne Babacar Sy rek laa gëm du fen du ma fen damaa na deret du ma fen te su ma amoon leneen lu may def dinaa ko def ak keneen ku dul xale pël Fuuta bi. d'accord lii leen attentivement waxu dëgg ak waxu fen du doon benn mais siiw du jàmmi borom.